jamono ji Assane Samb ne nag andi na xam ne mooy teer te yeyul kenn Macky Sall andi na fi am na ci réew mi waaye Macky Sall kenn Coupe tabax na stade bu mujj ayib Macky Sall kenn kàddu yu Assane Samb ci journal bi di Rewmi Quotidien yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na piccong baaloo am na ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal te li nga xam ne moo ko waral du lenn lu dul li nga xam ne mooy parrainage bi ndax ñi nga xam ne ñooy opposition bi d'accord ñu ci benn yoon yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien coalition Wallu Sénégal ñoom nag lank ba tëdd sa naaj wala ñu def nee ñu parrainage bi duñu ko nangu tey duñu ko nangu lekk du bokk ci li nga xam ne moo législatif yi maanaam bu ñu ñu ci bu ñu saañum guerre ñoom Abdoul Mbaye neexi tubaab nee nañu nag Macky Sall si la ñu xamul Macky lii muy def ana fan la ko teg Macky Sall nee na ci CEDEAO bokk te nag lépp loo xam ne CEDEAO sant na ko Sénégal maanaam Macky Sall day lànk ba tëdd sa naaj wa loolee na ñoom Abdoul Mbaye nag mënut a comprendre a yéen a kaay gii di l'info nee na coalition wàllu Sénégal ñoom jamono ji li nga xam ne moom la ñu bëgg maanaam ñu dajee nag ak Macky Sall nag waxtaan na xoolante ci biir yi bët ci lu jëm ci wàllum parrainage bi yéen a kaay gii di sa njiitu réew mi di président Macky Sall ana nan lay def ba ay liste parallèle du bokk yaakaar ci élection législative nga xam ne moom la ñu dëgmal loolee moo jaaxal Macky Sall yéen a kaay gii di Walf na nag du loolee rek moo jaaxal Macky ndax nag Macky kan lay jiital ci diiwaanu Ndakaaru loole nag jaaxal na Macky Sall lool ndax ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr bërki démboo njaay la ñàkk élection locale yi ci diiwaanu Ndakaaru te nag su dee nag Amadou Ba Amadou Ba tamit bu ñu ko jiitalee est-ce que Moussa Sy dana ko soutenir ak Abdoulaye Diouf Sarr ndax nag ñi nga xam ne ñooy jege ñaaley Moussa Sy ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom dañoo jàpp ne Amadou Ba jàppale wu leen woon ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn te nag su dee Aminata Touré maanaam nag fàtte sax ju fee ndax nag 2014 ko dóoroon dóor yu yéene kaay gi de la Soleil wax na njiitu réew mi di nag Macky Sall jamono ji nag li mu bëgg maanaam ñu négocier nag ba génn ci situation bi jàmm daal di kaay gi di Walf Fadjri nee na nag ci lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne mooy borom salon Sweet Beauté moom dinañu ko déglu nag talaata ji nga xam ne moom la ñu dégma la dans le fond maanaam ci ak xóota la yéene kaay gi tamit daan na sa yokk nee na ci weeru avril wi nga xam ne moom la ñu dégma la Ousmane Sonko moom tim danañu ko daal di déglu yéene réew mi quotidien wax ci lu jëm ci wàllum njuuj njaaca trafic passeport diplomatique yi nga xam ne moom la ñuy tuumaale ñaari député yi di Boubacar Biaye ak ma Mamadou Sall ñoom nag dañu leen a waroon a atte ci tribunalum Dakar waaye nag mbir ma dañu ko mujj dàq ba juróom ñaari fan ci weeru avril la ñoom seeni avocat doon nañ leen sàkkul li nga xam ne mooy ay bàyyi néggandiko ay liberté provisoire waaye na gars yi dañu ko lànk ba tëdd sa naaj waa yéene kaay gi di lay seko nee na doomu Cheikh Yérim Seck bii tudd Sidi Seck dañu tuumaloon ko lu jëm ci wàllum viol jëloon ko ko sa kasu ba may nañu ko nag tête d'office yéen kaay gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu forum mondial de l'eau danañu ko amal nag ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars si jam ñaaco waaye nag ñi nga xam ne nag ñooy waa mairie bu ndakaaru nee ma ñoom Barthélémy Dias ñoom nag nee nañu xew wi daal boole wuñ leen si ndax nag invitation lañ leen andil ne leen nag bis ba daal maanaam cérémonie ba du ngeen jël parole maanaam daal du ngeen wax di ngeen di ñëw rek daal di ñoom Barthélémy gis na dañ leen a seppi na leen ci li nga xam ne mooy xew wi moo tax mairie bu Ndakaaru ñoom nag dañu li nga xam ne nag mooy seenu forum mondial de l'eau tey jii la ñuy commencé nag maanaam seeni préparation yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ci diwaanu Rufisque la fa xew la ndax lu toll si juróom-ñett ci ay nappkat yoo xam ne ñoo na mes na menteñ gars yi seet nañ leen ba sonn gisaguñ leen waaye nag ñoo ngay continuer di seet ba léegi ne ñaari fan ci weeru mars ba léegi gars yi téeri si wuñ yéen kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu armée bu Sénégal bi nga xam ne ma nga sa bët gànnaaru sinj nee ma sa Casamance foofee nag am na benn benn soldat boo xamante ni ñàkk na fa am na lu toll si juróom ñoo xam ne am nañu ay gaañu gaañu yéen kaay gi di enquête nee na base rebelle bii di Salif Sadio armée sénégalaise bi teg na ko loxo yéen kaay gi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu combat Modou Lo Ama Baldé combat boobe nag boo muy tuulee si yàqu la jëm de yéen kaay gi nee na Modou ba léegi ni nag wérugula commencé gul sax li nga xam ne mooy entraînement yi waaye nag Ama Baldé daal ñaari option la am ñaari pexe rek su dee nag Modou bëriwul daal Ama naa jël ki nga xam ne mooy Tapha Tine bëreeg moom wala sax mu dem nag jël Gris Bordeaux